kon nag ñun li ñu bëgg mooy ku ñu soppil ndox mi defal ñu ko ndox mu neex loolu rek la ñuy laaj laajuñu leneen loolu la ñuy laaj état Sénégal parce que ñoom ñoo ko man soppi am ndox du ay nit mënuñu ko ki man mooy président Macky Sall nañ def ba Lac de Guiers di te Lac de dem ba Dakar bu leen deexoon mu ñëw fii ndax diggante bi 110 kilomètres la te et quelques kilomètres kon ñoom bu leen deexoon ndox la ñuy ñaan ñaan ñu leneen li ñu bëgg mooy ñu soppi ñu ndox mi ñu am ndox mu neex encore une fois nous faisons appel à l'état du Sénégal dañ xam ni Mbacké kenn du leen jàngal fay ndox kuy fay ndox pendant 30 nekk deuxième ville bi dàq fay ndox ci Sénégal bu demee ba un moment donné mu ne la kat li ngeen ma doon jox pendant 30 am ngeen ci seen i bénéfice rentabiliser ngeen li ngeen defoon lépp li ma leen di demander du leen lu ngeen defar ndox mi jaay ma continuer di leen fay kooku foog naa ñaar ak ñett duñu leen dégg te ñoo ngi encore une fois di remercier kilifa diine yi parce que tamit xëy na suñu wéeruwaay du ñenn ñu kilifa diine yi àndal kilifa diine yi nga xam ne ñoom itam ñoo ngi bokk ñun ci combat bi di xaar nag ñun ñëpp a ngi daas fanaanal di xaar nag ba xam étape supérieure bi lan lay doon ndax bu ñu xaaree xaar gisuñu lu ñu xam SDG dañ leen di génn fañ nekk waaw Sen'Eau parce que ñoo ngi xaar nag euh, booba ba léegi ci légalement la ñuy dox te loolu lañ fas yéene def itam mais bu ñu demee ba un moment donné nag euh, ñoom itam ñu mel ni ay gaynde yu tëx ñun danañ xool étape supérieure la ñuy jëm. waaw combat bi moom day continuer fekk amuñu ndox mu neex moom dañuy continuer tey fi ñu toll mooy lànk bañ a fay facture ñun fayatuñ suñu ay facture pourquoi fayatuñ ko parce que amuñu ndox mu neex ndox mu naqari la boo xam ne baaxul sant yàlla mën a togg mënut a def leneen ba tax tey ñun fayatuñ facture yi dañoo taxaw léegi nag di leen déglu ñu ko defaree ndox mi ñu continuer fay bu ñu ko defarul dootuñu fay facture foofu la Mbàkke toll kenn du ñu coupé parce que kenn ñoom wut duggati ci kër yi di wax parce que ñoom xam nañ ko ba tax dañoo wax seen agent yi ne leen kër gu ngeen dem bëgg a bu leen ne bu leen laal bu leen laal bàyyi leen ko ngeen def kon ñoom xam nañ li xew ci ndox mi ñoom ñoo ñu gën a xam li xew ci ndox mi parce que bu demee ba coupé tuñ nit ñi xam nañ li xew ci ndox mi te bu ñu coupé itam dañ koy delloowaat bu jëlee culture bi itam ñu delloo ko ca ndey